daal Casamance daal ndekete fañ fay bay yàmbaa ju baree bari bari soldaar si armée bi takk der yi fañ faa lakk juróom fukki hectare yoo xam ne yàmbaa lañ ko doon bay aay waa ma ne juróom fukki hectare ci toolu yàmbaa waaw loolu buñ ko bayee ba mu ñor xanaa Sénégal yëpp buñ doon tux yàmbaa du tax mu jeex de yittit mi lii fa bari man dafaa fooga ne yàmbaa ji bitim réew lay bàyyee ko yàmbaa baaxut de fa lay mandiloo tàqe lak sa sab lii yëgle kaay gi nee ma pàg gi géej duusu géej laa la wax yëgle kaay gi naan man heure wuti tefes ay loxo du ko téye baay waaye ay loxo du ko mën a téye même mu sàmbaraanul yëgle kaay gi naan man kaay ma xamal la sunu lii di fleuve Sénégal gi dagg rek wuti askan wi du duñu ci wax ku koy téye en tout cas lu ci am ba des mooy fleuve Sénégal ci jëmi boppam ngi waaxuy ram-ram yi wuti askan wi yëgle kaay gi naan man ay loxo mënu koo téye de solution dëgg yu am solo moo ko mën a téye yëgle kaay gi naan man taxawal taxawal le quotidien le naan man ma xamal la débordement fleuve Sénégal bi fi toll nii tamit diggante Bakel ba Matam ay village la fa jël laa la wax nangu ko village yu baree bari ñi ngi ci ndox mi fi mu toll nii tembe mag daana wax naan dëkkuwaayu ndox mbaa yoonu ndox du kër lu ci am ba des daal xaw ma ndax fleuve bee nangu la mu moom day foqar ci li askan wi moom lu ci am ba des askan waa ngay wut ñu leen jàppale yëgle kaay gi naan man tool ya nga xamante ni moo tax nag lii du ñu ci wax. ok musiba la moom armée bi euh, taal nañ lu war a tolloog cinquante hectares ci ay toolu yàmbaay ca Sindia Casamance Euh, ña nekkoon ci armée bi nag defoon don de soi pour la patrie bu mujj ci jëlee ay laago ay invalide lañ ci seen campagne de solidarité bi ñu nekk ca Semga ba euh, Sonko ba mu fa jëlee kàddu nee na leen dinañ leen gën a wekk ci seen ay pension ci seen ay faju même ay dëkkuwaay sax dip na leen ko waaw musiba foofa ca diggante Bakel ak Kidira ak euh, Kanel ndox ma fleuve Sénégal nangu na ay kër nangu na ay tool ñooñu jaaxle nañ lool yàlla ñu yàlla may kenn dal ak jàmm bu fàtte naa Iliman Ndiaye ca entraînement wu yi tey foofa ca Malawi gisuñ ko fa. ndax dina ñëw déet on sait nga yëg nga ñàkk yëg am na lu ko sëkk doy ko mbubuk tubay ginnaaw élection législative ñu dëgmal ci Sénégal moom Macky ak Amadou Ba daal ñoo ngay rayante ndax danañu xam dëgg kan mooy rendi sa morom jéegi ginnaaw élection législative ñu dëgmal ci Sénégal gi ndax ñoom ñaari àndandoo démb yi kay ñoo nar a ci élection législative yi yem ak fukki juróom-ñaar ci weeru novembre atum waa kër Abdoulaye Wade ñoo ngay rayante te ne nañu kon ni bëgg ëpp point ak tune tontu daal du forox ndax waa kër Abdoulaye Wade kon ñu ngay tontu Doudou Wade ak ñi mu àndal te ñu ngay sàkku dëgg la lew te ministre intérieur général Jean Baptiste ngir seen modèle bulletin bi ñëw waa soppi Sénégal daal ñu dindi ko ginnaaw bu ñu nekkoon seen modèle bi ne daa méngoog lool ay mbir yoo xam ne waa PDS ñoo ko moom ay waay lii tamit mbaa jàmm la ay waay israélien yi PRODAC ak construction des domaines agricoles communautaires dak ya ci ay millions day yoo xam ne dañ koo viré avant même enregistrement wu contrat baax ilaha illallah waa lii lan la un ordre de démarrage nee nañ a été émis signé ko de joxe ko vingt cinq mars 2016 te contrat ba ñu ngi ko notifié 25 juillet 2016 ca Green 2000 eh waay Samba inspection générale des finances ña nga mera mera mera mer ba maar di taali laa lay wax ni li dama ne la bailleur bi day diggante le 9 mars ak le 8 juillet 2016 jébbal nañ ko ñeenti demande wu paiement la wax te yàlla yéene kaay Cheikh Mbacké sa gi ne coowal abri provisoire waaw waa groupe Synergie Afrique day tontu nañ de dal nañ ci kaw moo di ñaa laa la wax weeti nañ de 24 heures yéene kaay ne Boubacar Camara day waaw fas yéene naa jàppale jàppale waa Pastef ba nuppi xamle ne jàppale bi nekkul ne tey rek la dee déedéet direct news de waaye Boubacar Camara mi lé lan lay daw nii bay daanu ah ci lan yéene kaay Pape bi ne te du Boubacar moo fi doon wax ne jël réew mi kat dénk ko ay aventurier ñu xamul dara ñuy jàng waaw ay jilee moom Boubacar Camara waaw moo ne nañ leen kon ci projet Pastef bi la sàkku ci sénégalais yëpp ñu adhéré ci mmh. leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja moo di ñaa daal fa joxe ay xibaar yu garaaw ci doxalin bu jaarut yoon ak tappale ca entreprise ba ñuy wax Synergie Afrique ndekete yoo xibaar yam joxe nag fa caa juum du kër googu ba tax entreprise ba fañ ko porter plainte ba pare nag fa ñoo leeral dëgg gi ak na mbir ya demee na yëf ya demee nag ca diiwaanu Matam ak Bakel dëkk dëkkaat ya leen wër mooy fa ñoo jaaxle géej ga fa sàmbaraa nangu kër ya ak tool ya ba tax askan wa fa ñoo jaaxle a kaay na état bi nag fa mel ni fay tendefal nag libération moom fa ñoo xamal tooxi Mame Mbaye xaalis ba fa xam ñaari milliards ak ñetti téeméeri million yoo xam ne fañ koo viré jox ko israéliens yi ngir ñu defar domaine agricole ñoom bi ñu jot xaalis bi booba contrat yaak kayit yaak la ñu war a def yëpp amagut pareegut mais loolu fa garaaw yaw seetal président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye joxar dina ay ministre am ne leen na ngeen góorgóorlu ba irréprochable maanaam kenn mën leen a gën a bañ a gàkkal ci dara na ngeen góorgóorlu ba fàttaliku sacrifice yi sénégalais yi def ngir ñu jot ci nguur gi ngeen wéetee ci seen i bureau te nit fi dof dof ba dugg ci naka sudul noonu booy nërmeelu yow képp yaa cay nërmeelu bu ngeen di farante it na nekk dëgg na ko lal li ñu naan projet bi tey lañ koy présenté kon foofa ca Sicap bu jëm ñaajo Sénégal vision 2050 waaye journal bi di lii quotidien nee projet boobu existé wul waa nee na waa ju tudd Victor Ndiaye ca riw Baobab la gisante ak président Diomaye jox ko kon li ñu nar a présenté tey lii la journal bi bind waaw euh, parti démocratique sénégalais PDS ñoom dafa am ku jël seen signature leader di maître Abdoulaye Wade di ci def lu ko neex dinañ porter plainte pour faux et usage de faux tey ñaan ministre de l'intérieur mu retirer fiche bañ ko jox pour élection législative yi élection législative yi waa APR nee président Macky day ñëw loolu moo tiitloo Diomaye ak Sonko ginnaaw bu leen yàkkee ay musiba taftal ci Mimi lu nekk lañ ko wax waaw moom président Macky Sall digganteem ak nan la nar a mujjee. ko koppar la ñu wax ba ñuy yaxanal ak sakanal tribune yéen a kaay naan déet boobu le réew kay xanaa du réewum président Diomaye bii réew moo xam ne moom président Diomaye fay ci boppam ma nga jël ay ndaw di leen casé ci présidence de la république ci réew moo xam ne nee ñu saax saaxee nañu alal gi ba ma nga jaaxaan mar de taali tribune yéen a kaay des bi mooy wax naan moom président ci boppam la mu digoon askan wi ne day wàññi train de vie bu état bi daal dina koy salfaañe Thierno Alassane Sall na leen ay recrutement politique dong ngeen di def jébbal ko ay pastefien te du président nag nekk ci logique gu armée ay ndawam ña nga xam ni dañ doon xaar ay nomination awril ba tey ngir éviter ay frustration fii la réew mu toll yéeni kaa yib dee média bi naan maan réew maa ngi toll yi ca xëccante ga am ca parti démocratique sénégalais gaa yaa ngay sax saaxante fa yallaaxu Tamsir Coy ak Doudou Wade ak ñañu àndal fas yéene dajj pelent waa parti démocratique sénégalais yeneen yi ndax nag nee ñu dañoo jël xaatimuk maître Abdoulaye Wade falsifié ko ndax Wade ci boppam masulee na tere kër Abdoulaye Wade naan caaxaanu ma de maam booy ne caaxaanul nañu dindi bulletin soppi Sénégal gi nga xamante ni daan di roggu PDS ay lii yéeme ne te doy waa lebe yëgle kaay naan ma ab magasin boo xamante ni moom la ñu kàmbur yére ci kër Massar aw chinois benn maan waaw waaw maa la ko wax sunu gaynde yi fas yéene laaleeg Malawi Malawi Sénégal Lion yaa ngay entraîné teg Eliman Ndiaye bokku ca tribune naan maan li mën a xamal mooy ginnaaw succès bi nga xamante moom la Burkina Faso am ca Burundi moom mooy équipe bi njëkk a jëm suba jàmm ak salaam Sénégal ak Malawi ale boo gis am na retour Ismaël Jacobs yëglekaay gi naan man du football de day faju genou ba Papa Thiaw yëglekaay gi naan man moom ci jëmi boppam nag fi mu toll ni téeméer daa war a def confirmation tëgg ñëw na ci deuxième mi-temps match Sénégal Malawi bi première mi-temps ba ku ne gis na na mu leen def riji rije na lee sunu góol bay seeni jee gisul bal moo deuxième mi-temps bi fu nu jëm ak ñoom lu ci am ba des daal marsum njaar la. tooxi doona ya buntu ba ubbeeku na doy waar bu nga xamante ni moom moo am foofee ne ci diwaanu sor muy soxna su nga xamante ni daal moom nee nañu rakkam bu mu bokkal ndeeg bàyyi la daal di fekk ci kaw jëkkëram moom sax nekk ab soxna su nga xamante ni daal daanaka ci wàllum administration lay liggéey waaye itam amoon loolu confiance ci am rakkam bu nga xamante ni ab étudiante la mu bàyyi ko këram moom daal nee nañu gi nga xam ne daal ñëw na ko ci biir këram di fekk rakkam ci kaw borom këram loolee nag moo ko daal di ajal malaise ba jamono bi sax nee nañu mu ngi ci biir coma loolu nag saa nekk biir moo xamante ni daal doy na waar ba tax na jamono bii nii askan mu nga xamante ñoom ñooy yeewa foofu ñu ngi koy ruuma daat ci di yàbbi mbokk yi nag lii doy na waar loolu amoon mbégte mbir mi nga xamante ni moom moo xew diggante yenn ki ay transitaire ak waa douane bu Sénégal nag am na ci ay ay transitaire yu nga xamante ni daal daanaka tëf yëngal dong lañ nekkoon maanaam di def ay sul bukki sul suli bukki di bind ay chèques yu nga xamante ni daal ay chèques yu baaxul la di ko yóbbu ki trésor ngir ñu jox leen xaalis lu ci mënti am daal transitaire yooyee bu ñu moytu nag jamono bii douane dina leen teg loxo gannaaw sax ci fàttali ab transitaire bu siiwa siiw bu ñuy wëkki turu Badou Ndiaye moom sax itam yu mel noonu moo taxoon ñu daal di koy teg loxo lu ci mënti am daal réew mi na jamono bii jub jubal jubanti rek lañ fi xaar képp ku nga xamante ni nag yaa ngi la nga xamante ni jaarul yoon jàpp nag nguur gi dina daal sa kaw. fépp fu waay nekk ma ne kaay leen nag ma wax ak yéen leader yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñi da ngeen a bëgg a doon député ci réewum askanu sunu gaal ma ne jërul xuloo jërul xeex jërul saagante jërul lenn ah, jërul xuloo jërul xeex jërul saagante nan def ndànk te xam ne Sénégal gii benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ku ci nekk ci ñun rek am nga li nga xamante ni moom moo di sa kàddu ci réew mi waaw ku ne ci ñun am nga sa kàddu ci réew mi waaw maa la wax li ku ne am nga fi sa kàddu kon kay jërul ni xëccoo ko xuloo ko xeexoo ak xiiroo ko ngaayoo askan wi ci dëkk yi ak yi ci kër yi ñoom ci seen jëm bopp xam nañ ku gën ci seenub dëkk gis nga vote boo koy def da ngay xool bu baax a baax li ngay def booy voté dangay ngay ki nga xamante ne leer na ni kii mën na laa jëriñ dara waaw waaye du voté koo xamante ne intérêt personnel am rek moo ko tax a jóg yëfi boppam ah doy na waar doy ëpp nëpp tool ma ne ko ëpp na tool waaw ah, waaw ma jàll ca revue de presse ba. maa ko waxoon maa ne képp ku commenté ma tudd saw tur mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon bu subaak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci riim askanu sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien dikkati naa dalee na jàmm lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër Sénégal bonjour cher gente de Enquête 221 dal gën a fës ci yëglekaay yi mesdames et ñuy naa ñëpp fi laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leex xew ci réew mi sunu gaal gi jërë ngeen jëw ah, ah, laan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca eh, seet te te te nag yàlla baax na ñu yéen ak jàmm bu subaak jàmm incha allah ñu C'est tout à vos journaux très bonne lecture. Que mais la tidong, mais la tidong de Tchéi Allah. Founou Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. <laughs> tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que jomaay sonko te sonkoy jomaay boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba te ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah